comme inspecteur impôt domaine. Mm-hmm. am na ay défauts am na ay défauts delloo wax daggkatu jiite pour sénégalais comprendre <laughs> parce que yooyu sa langage la donc coopération boo dem jàngalekat yi mm-hmm. am na ay défauts mm-hmm. jàngalekat yi presse daf di bi dafa am lu bëri lu ci lu ci lu ci lu ci dëgg te ci léegi am formation bariwul li ci bëgg journaliste sax bariwul. mu ngi mm. xaalis bi dugg ci a compris. mais quand même c'est une presse. Mm. presse la boo xamante ne bii. Mm. wax naa ko keroog fii rajo privé yi ñoo fi jëlee ñoo fi jëlee Abdou Diouf. télévision privée yi ñoo fi jëlee Abdoulaye Wade. internet bi Macky Sall mm-hmm. euh, ak chroniqueur yi ñoo fi jëlee nguur gi. parce que yàlla lu mu bind rek.

di fi jàllale seen propagande di fi def alerte di fi def riposte. c'est bien c'est bien ak am na ñu koy utiliser mais tey daal di nga koy fay jële parce que bu na parce que fii opposition la ñu jël non li ñu bëggoon am ci li nga am li nga am ci opposition bi loolu nga am ko ci kii non c'est-à-dire que ñaari fauteuil la.

vraiment nga sa presse bopp sa vraiment sa presse d' état voilà di ko di ko di ko défendre mais xam nga defe nga état dafa jafe ak a lëtt ba dëgëru saa tool ci toolu ceeb bi foofu toolu ceeb bi nga bëgg a dàq picc dafay dàq picc moom défendre bi ngeen dëgg la picc boo boo dàqee ba ñuy xëyul boo tawee rek ñu ñëwaat parce aussi il y a les avantages il y a les inconvénients donc ñoom li ñu war a def

ñu kat commencé nañu xol curricula yi commencé ah, table banc yi parce que fii euh, euh, commencé dafa ay table banc am nañ problème table banc nekk ci yooyu enseignant yi matul ñu commencé recruter ñu ñu benn boo gis si njàng bi nga xool secteur primaire sàmm bay napp parce que bu ñu bëggee régler problème euh, chômage bi foofu lay nekk sàmm bay napp nga couplé ko ak industrialisation mooy joxe ci ay emploi bu bu bëri mm-hmm. waaye aussi doo fekk tamit lii ay emploi yu ndaw parce que même booy xeex ay ay seen biir far ba Mamadou Ibou Kane ba keneen da ngay fàttali derrière il y a de l'emploi tout à fait te ñun xëy na ñooñu ñooñu ànd xale yooyu nekk ay si biir far wala ñu votel mm-hmm. parce que fii kenn xamul kan moo votel kan mm-hmm. waaw kenn xamu ko de kenn xamu ko mm-hmm. moi j'ai vu beaucoup de jeunes yoo xamante ne bii ci seen structure yi ils ont voté pour pour la plupart des jeunes sax ñoom ils ont voté pour moi kon doo seet structure yoo xamante ne bi parce que simplement euh, ndaw si yée ko la wala waajur yée ko la da koy xeex ni ko day fay impôt parce que loolu amul ci benn société impôt boo gis doo dàq la fii amul kenn ku ci def production boo xamante ne bi mën la ngay fay impôt mm-hmm. à part fonctionnaire yi nga xamante ni da ngeen dagg à la obligatoirement kenn du fi du fi yoon yoon yoon façon impôt yi par contre am na ay niche yoo xam ne nag wala

ñu jàngale ñu liggéey. Mm-hmm. ma dinaa la dinaa la jox dinaa leen jox bourse yow dinaa defal convention. c'est comme ça un problème. Mm-hmm. te loolu yam la war a. Ah. Mm-hmm. li ñu def ci presse bi bay mayu leen ko xaalis bi ñu yor moom lañu ko. c'est pas l'argent de Sonko ou de Diomaye c'est l'argent du pays. c'est l'argent du contribuable. il faut que euh, vraiment euh, compréhension bi ñu bi ñu am rapport bi ñu am avec l'argent public avec les moyens publics ñu changé ko li ma que c'est ni baaxul. mais j'ai comme l'impression que c'est des gens qui pensent que dafa am nañu droit jox kii parce que c'est leen neex xañ kii parce c'est de l'argent public mm-hmm. c'est encadré. Ça mm-hmm. veut dire yow boo defee ab la presse c'est pas de la corruption. Mm-hmm.